syndicat national des travailleurs de l'automobile moderne loolu jëmmal nañ ko ñi nga xam ne ñooy ay professionnels ci wàllum automobile ñoom dañoo fas yéene rek daal di dajaloo ci ab kuréel bu nga xam ne day tax kat ñu daal di xeex lii nga xam ne mooy déguerpissement yi ndax jàpp na ne kat fu ñu daal di samp rek ñu yëkkati leen fa. problème yi ñu daan am nag bi ci njëkk mooy déguerpissement maanaam dañ daan nekk fen ñu fekk ñu fa jëlee ñu fa du ñu lijjanti ñoo ko moom wala moom léeg-léeg sax ñu moom ko ñu sonal yoon. ñu soog a xam ne ñoo ko moom ñu bàyyi ñu fa donc yooyu yëpp ay jafe-jafe la. ñoom gis ne loolee kat da leen di sonal lool waaye la ñu bëgg mooy ay bërëb yoo xam ne kat dañ fay liggéey mën faa suturlu waaye lépp rek tegu ci yoon. syndicalisme nag li tax ñu ci dugg mooy ku ne xam na ni syndical dafay defendre ay travailleurs te le travail moom mooy mbir mi nga xamante ne doomu aadama bu nekk boo ko amee am nga sa dignité moom moo tamit liggéey mooy li nga xam ne mooy yokk am réew te nekk. daf ci nekk secteur bu am solo. dafa delluwaat ci ñoom ñii ñoo daal di ubbeeku ci ñi nga xam ne ñooy secteur privé bi waaye tamit daal di décrocher ay financement bu ko defee am ay bërëb bërëbu liggéeykaay yoo xam ne dana mucc ay secteur bi ñuy wax secteur informel en tout cas ci wàllu automobile dootul amat ci Sénégal ñëpp dañuy nekk léegi ay entreprise entreprise nag boo waxee day am entrepreneur ñëpp chef de garage bu ci nekk da ngay nekk entrepreneur te bu ñu leen defee entrepreneuriat bi ba pare. dugal leen ci syndicalisme bi protéger seen am-am ak seen alal ci wàllu liggéey ni wutal leen ay financement yu mën a tax ñuy def ay garage yu méngoo ak jamono. ñoom ñu bootu ci waa CNTS bu Mody Guiro ñoom ñii nga xam ne quartier ñoo liggéey ci wàllum automobile la nee na rikk waay lu ñu bëgg. dugal seen loxo ci euh, suqalik Sénégal.